am nañu gouvernement bu bees boo xam ne nii projet la teg ci table bi bon projet boobu man participer naa ji à travers le Moncap Tourisme et donc forcément projet boobu man je l'épouse forcément tourisme ak artisanat du ànd la mais du ànd la mais euh, euh, man def naa ni du première ah parce que mosoon nañ ko boole aussi au Sénégal dans le passé ah dans le passé il y a, il y a déjà eu ministre euh, euh, euh, tourisme et artisanat et culture mosoon naam bon après man def naa ne am na période boo xam ne nii euh, dañu am euh, ay décideurs ou bien ay euh, dirigeants lu ñu fa fekkoon mu doon sax mu saxoon loo xam ne nii amoon na ay impact positif ci économie bi ci population locale bi dañ dañu ñëw aussi jéem a def leneen te ama tourisme moom doo def loolu tourisme moom doo ñëw rek nga ni damay changer lii damay changer lii et cetera parce que c'est une longue histoire